tappalekat bu tudd Ismaïla Madior Fall parce que Ismaïla Madior Fall wax dëgg yàlla man jàpp naa ne leen ko fi vaar ci Sénégal amul benn leader buñ ko fi mas a vaar Ismaïla Madior Fall mii leen ko fi vaar maanaam vaar yi nga xam si ay waxi tappale ci kasaaw kasaaw yi fi Ismaïla Madior Fall wax yëpp man damaa toog ci ak ma ni waa kii est ce universitaire la bala maa dañ naan universitaire moom lii mooy universitaire universitaire boo xam si yow li ngay jàngale ci euh, université bi ci amphithéâtre boo demee ci biti ak la ngay def comme yàlla ak yàlla boo tayee nga wax lii bu subaa nga wax lee euh, Ismaïla Madior Fall dañ koo vaara vaara vaara vaar ba dañ koy yërëm Ismaïla Madior Fall moom nag dafay wax ay wax yoo xam ne foog ñu bàyyi leen ngeen déglu ko donc dama leen di dégluloo euh, bu njëkk bi nga xam ne Ismaïla Madior Fall moo fi taxaw ni mandat bi kenn mënu koo soppi ndax constitution bi Euh, lim ci wax kenn mënu koo dindi kon ñu déglu premièrement deuxièmement vous savez la date de l'élection présidentielle c'est dans la constitution. Mmh. que c'est fixé donc euh, euh, au Sénégal il est facile de reporter des élections locales territoriales maintenant on dit. Mm. il est facile de reporter des élections législatives on peut par une loi. Euh, reporter des élections législatives c'est arrivé mais les élections présidentielles c'est dans la constitution troisième dimanche donc on ne peut pas reporter l'élection présidentielle au Sénégal. en Ismaël, tout cas juridiquement. Ismaël euh, waaw yéen a ko déggal seen bopp Ismaïla Madior Fall moo ko waxal bopp moo ni euh, dàq ay élection législative man nga koo def muy élection député nee na loolu mënees na koo dàq mënees naa dàq ay élection territoriale maanaam fi ni fale ay mair ak ay président de conseil départementaux maanaam moom la ñuy wax élection gox goxaan yi waaye dàq élection présidentielle mënut a nekk Sénégal yéen a ko déggal seen bopp mais xool ngeen Ismaïla Madior Fall lii mu wax léegi mu leer nañ te lii mu wax mooy dëgg élection présidentielle kenn mënu koo dàq ndax wax naa leen article 27 bi ak article 103 bu constitution bi la ñu wax kooku kenn warantewu ko tey rek professeur Babacar Gueye mi ngi koy wax ci conférence de presse bi euh, plateforme société civile bi doon def tey rappelé na le principe d'intangibilité bi am ci article euh, bi bi concerne le mandat élection présidentielle kenn mënu koo dàq parce que kenn mënta yokk kenn mënta yokk li nga xam ne moom mooy mandat bu président te même boo doon soppi constitution bi sax mënoo koo laal kon Ismaïla Madior Fall gis ngeen ni mu wax mu leer nañ lii mu wax nag mooy dëgg léegi nag ñu ñëw ci kàcc yi léegi dana leen tegal li mu waxoon ni mu ko wanaasoo dem wax leneen moom Ismaïla Madior Fall dana leen wan loolu léegi li mu waxoon ak lii mu waxaat nan la wute juridictionnel la loi maintenant dont vous avez parlé c'est pas une loi ordinaire elle est susceptible d'être attaquée, voire euh, annulée par le juge constitutionnel. Ce n'est pas une loi organique. Pour la loi organique, le président d'ailleurs est obligé de saisir le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Et la loi est susceptible d'être annulée. En l'occurrence, c'est une loi particulière. C'est une loi constitutionnelle. Mais attention, c'est une loi constitutionnelle qui ne modifie pas la révise pas la Constitution. C'est une loi portant dérogation à la Constitution. Ça veut dire qu'elle Elle ne modifie pas les dispositions constitutionnelles. C'est une disposition conjoncturelle, ponctuelle, transitoire. Et dès lors que l'élection présidentielle organisée le 15 décembre 2024, la disposition n'existe plus dans la Constitution. C'est disposition transitoire. Donc c'est une disposition portant dérogation. Mais c'est une loi constitutionnelle. Et une loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, c'est une jurisprudence constante. Le Conseil constitutionnel euh, se pour contrôler Parce que le Conseil constitutionnel, les juridictions de façon générale considèrent que le pouvoir constituant est souverain et que le pouvoir constituant peut prendre les décisions euh, qui sont de son domaine et que une loi constitutionnelle ne peut pas être contrôlée par un juge constitutionnel. Parce qu'une loi constitutionnelle a le même rang que la Constitution. Donc là aussi, injusticiabilité de la loi constitutionnelle. Une loi constitutionnelle ne peut pas être attaquée devant le si elle était attaquée devant le juge constitutionnel le juge se déclare incompétent parce que le pouvoir constitutionnel est souverain. Euh, yéen a ko gisal seen bopp gis ngeen ñaari wax yi ni mu wuutee euh, muy wone tappale boo xam ne ci la Ismaïla Madior Fall nekk suba ngoon mais première tappale bi ak wane ni Ismaïla Madior Fall li muy wax moom ci boppam sax gëmu ko dama leen di won benn firnde boo xam sénégalais yu bëri seetluwuñ ko seetaanaat leen bu ngeen paree li Ismaïla Madior Fall la Madior Fall ci vidéo bi ci coupur bi wax na une minute trente cinq secondes une minute trente cinq secondes kese la wax ci une minute trente cinq secondes yi répété na con répété na constitution ak constitutionnel euh, euh, conseil constitutionnel ak constitution ñaar yooyu répété na ko vingt six fois ci une minute ci une minute laa leen wax de une minute trente cinq secondes répété na constitution ak conseil constitutionnel vingt six fois wàññi leen ko yéen sénégalais yi. loolu moo leen di won ni ab tappalekat la boo xam ni moom Ismaïla Madior Fall ci la nekk parce que redondance bu metti boobu mu nekk di wax di waxaat di wax di waxaat lay wane benn manque de sérénité maanaam li muy wax wóoluwu ko gëmu ko parce que xam na li may wax dara du ci dëkk da koo répété répété répété ba con euh, seetaanaat leen ko constitution conseil constitutionnel constitution conseil constitutionnel répété na ko lu mat ñaar fukki yoon ak juróom-benn ñu seetaanaat ko juridictionnel La loi maintenant dont vous avez parlé, ce n'est pas une loi ordinaire. Elle est susceptible d'être attaquée, voire euh, annulée par le juge constitutionnel. Ce n'est pas une loi organique. Pour la loi organique, le président d'ailleurs est obligé de saisir le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Et la loi est susceptible d'être annulée. En l'occurrence, c'est une loi constitutionnelle. Mais attention, c'est une loi qui ne modifie la Constitution. C'est une loi pas la Constitution. C'est une loi portant dérogation à la Constitution. Ça veut dire qu'elle ne réécrit pas la Constitution. Elle ne modifie pas les dispositions constitutionnelles. C'est une disposition conjoncturelle, ponctuelle, transitoire. Et dès le 15 décembre 2024, la disposition n'existe plus dans la Constitution. C'est une disposition transitoire. Donc c'est disposition portant dérogation. Mais c'est une loi constitutionnelle. Et une loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, c'est euh, se déclarent incompétents pour contrôler les lois constitutionnelles. Pourquoi Parce que le Conseil constitutionnel, les juridictions constitutionnelles de façon générale considèrent que le pouvoir constituant est souverain et que le pouvoir constituant peut prendre les décisions euh, qui sont de son domaine et que une loi constitutionnelle ne peut pas être contrôlée par un juge constitutionnel. Parce qu'une loi constitutionnelle a le même rang que la Constitution. Donc là aussi, injusticiabilité de la loi constitutionnelle. une loi constitutionnelle ne peut pas être attaquée devant le juge constitutionnel. Si elle était attaquée devant le juge constitutionnel, le juge se déclare incompétent parce que le pouvoir constitutionnel est souverain. lii da leen di won ni euh, li ma leen wax noonu Ismaïla Madior Fall mii ab tappalekat bu mag a mag a mag la suba ngoon li mu jàng yal nañu yàlla musal ci koo xam ne boroom xam-xam bu bu bu la. yàlla nañu yàlla musal ci borom xam-xam bu dëng parce que xam-xam bu àndul ak éthique du xam-xam Ismaïla Madior Fall lépp lum la wax bu subaa mën na caa génn wax leneen man vraiment kii damaa xamul nan la mën a nekk ab professeur université moo tax kii tax na kenn bëggatul sa doom jàng droit Ismaïla Madior Fall tax na kenn bëggatul sa doom jàng droit am na benn Sénégal bu dajeeg ma ne waa Dame Mbodj Ousmane euh, euh, euh, kii Ismaïla Madior Fall mii est que am nay mbokk Sénégal. man ne ko mais yow sa question bi question bu rëy la waaye Ismaïla Madior Fall mi xanaa mu ni mbokk mbokkam yi duñ koo wocc rox ne ko Ismaïla sa dara yàqu na Sénégal xam naa yëgu ko mais xanaa Ismaïla Madior Fall mi parce que Ismaïla Madior Fall dama toog bu dama naan mais kii est-ce que mi ngi toog di dégluwaat boppam est que mi ngi toog di seetaanaat boppam ci li muy wax mais xanaa moom même bu sax xanaa am nay mbokk waaye Ismaïla Madior Fall ay mbokkam duñ ko wocc rox ne ko Ismaïla Madior Fall watawat mais ay du ñu ko woo mais franchement lii dafa ëpp Ismaïla Madior Fall na ko ay mbokkam woo Ismaïla Madior Fall li muy def lii dafa ëpp bu tayee nga wax lii bu subaa nga wax lee instant bi li tax mu def génnam bii mooy day jéem a pousser conseil constitutionnel pour mu déclarer wu incompétent mais nan la conseil constitutionnel déclarer wu incompétent yow ñoom ñu dem assemblée nationale jël seen loi constitutionnelle moom ça n'a rien à voir avec les dispositions de la constitution dem di violer ay articles yu leer di yokk mandat wu président la république alors que amuñ ci sañ-sañ président la république dem dem del décret boo xam si teguwul ci dëkk ñaar yëpp ñu def ci ay recours au conseil constitutionnel léegi ñoom bu ñu déclaré wu incompétent kan moo compétent léegi ñoom li ñu def assemblée nationale ak décret bi Macky euh, Macky Sall jël léegi bu conseil constitutionnel déclaré woo incompétent léegi kan moo compétent Ismaïla Madior Fall tàppalekat nga conseil constitutionnel déclaré wu incompétent conseil constitutionnel mënta bañ a neenal seen. théâtre boobu ñu doon théâtre à l'Assemblée nationale parce que ab théâtre dong la woon ñuy law lawi ku nekk daw fa lay xëcc micro bi sànni kee woo kee tàccu kee ñu dem def seen yëfu caaxaan yooyu loolu xam nañ ni mënuñ ci jafandu ba dàq élection yi kon conseil constitutionnel li Sénégalais yi di xaar ci moom mooy mu ni seen tappale yooyu ñu def assemblée nationale neenal na ko parce que teguwul ci dëgg day violer la constitution cette loi constitutionnelle ne repose euh, absolument rien du tout donc ay tappale yi neen la conseil constitutionnel moom la sénégalais di xaar mu wax loolu décret bi président Macky Sall jël tamit comme conséquence mooy day dàq élection yi parce que dafa dakkal la processus électoral alors que heure bi dañoo war a fekk campagne bi takkarnaas région yi bari nag ñu ngi campagne seenum campagne mais Macky Sall li muy jéem mooy fexe ba élection du am parce que jot na ay sondage c'est clair sénégalais yëpp xam nañ ne bu ñu demee élection Bassirou Diomaye fay remporte les élections dès le premier tour avec un taux au moins de 70 pour cent loolu xam nañ ko Bassirou Diomaye Faye bu bon lee ba bon lee am 60 pour cent ñoom xam nañ ko day gagné dès le premier tour kon nag comme xam nañ loolu loolu moo tax Macky Sall arrêté le processus électoral pour jafandu ci ay euh, Karim daa war a doon candidat yéen 2019 yéen a fi éliminé Karim ba ngeen ko est-ce que dem ngeen ba campagne bi di door ngeen ngeen dakkal yi déedéet pourtant da ngeen a bàyyi élection yi mu dem tey Karim Karim Wade delloowuñu suñuy milliards preuve am na bi muy déposé au euh, conseil constitutionnel ba boobu amagul benn kayit buy wane ne amul double nationalité boobu mi ngi woon ak ñaari nationalité nationalité sénégalaise ak nationalité française am mu leer naañ léegi ngeen bëgg a taxaw bëgg a jafandu ci je ne sais quoi naan non parce que Karim Wade daa war a bokk. te yéen yéen a gën a xam lu ngeen di jafandu la rek mais Karim Wade buñ ne ko woon kaay bokk tey du ñëw Karim Wade man ñëpp a yàkkamti Karim Wade ñëwee bokk ñaata pourcentage day am Karim daa mën a am 1 pour fan lay jëlee ci élection Karim Wade bu ñëwee bokk ci élection ku koy voteel waa PDS ñoo ko gën a xam ay tappalekat yu fa nekk donc ñooy jafandu ci loolu pour jàppale Macky Sall parce que le système est en danger. ngeen gouverneur réew mi pendant vingt quatre ans sénégalais yi doyal ci yéen ngeen naan parce que Karim Wade ñëwul bokk bu bokkee ku koy voteel yéen a gën a xam ne bu yéen seen bopp sax yéen ñi koy wax gëmu leen ko xam ngeen ne Karim Wade du candidat buñ nekkoon kaay bokk sax du bokk Karim ku ko doon diiri sax di ko xëcc di dugal ci aéroport yi pour andi ko Sénégal pour mu bokk day bañ Karim Wade du candidat yéen a ko tey bàyyi leen seen caaxaan yi conseil constitutionnel day déclaré wu compétent seen tappale yooyu ngeen def à l'Assemblée nationale parce que ci caaxaan dong la tegu kon lii mooy dëgg kon nag